du ngeen bàyyi seen jël yi tawal nan lañ koy wax nit damay yàlla bala naan ma tawal seemor bëggay bàyyi ko ba da wax ba dal mu ne ko du ma dof sëriñ Tuubaa amul dof buy jaawale yàlla doomu aadama su ma tawal laaj ma fu ma ko teg da ne ko foo ko teg mu ne ko li nga defal yàlla soo manul ne aloo yàlla mu ne la aloo da kon jaratu ko ne ko bi yàlla soxlee jumaana yaa fa daaj ba mu ko soxlee Louga yaa ko fa daaj ba mu ko soxlee Tiwaawan jumaat jàkk fa daaj ba Sénégal daj bu leen ñi jullee ñibbi yow nga toog ak sa mbooloo di sàqamil yonent bi ifaadatika min ka ilay kay xaatatin nuurel mutalzam booleeg julleeg jàngaleeg jaamu yàlla soo ne aloo mu ne la aloo Maodo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 استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أستاذ مسلم بار خارج دارو مدنو بيدال تنديجو دنو دال تشاموي xambaar yi commencé wëndeel juróom benn minute lañ ci teg taw ba commencé sotti keroog la taw ba gàncax gi mëdd bàyyi faale bopp waaro ak waa kër Sëriñ Tuuba dooma laaj ni ñu doon bay jaa abilu umaame jaa abilu umaame déggal la baayu Mansuur wa jaa abilu umaame jaa abilu umaame wal faye faar ya jar na ko déggal la baayu Mansuur wa xoyee yaa abel umam yaa abel umam muslim déggal la baayu Mansour wa yaa abel umam wal fayri réew ya jar na ko la baayu Mansour wa yoo yoo yoo yoo yoo ñu ne Maodo ba kareeg daramaan yaa ne woo yaa qaayisal baar oustaz muslim sey laaji malik waa nga ñu kañ la bàyyi yonent faato ñu ne Maodo mu ne ñaari weer la am ci biiru ndeyam bàyyam faatu waa nga ñu kañ la yaay ja faato mu ne ñeenti at waa nga ñu kañ la ko yàlla yónni mu ne bi mu amee quarante ans ñu ne ko Maodo yaa ngi ñuy jaaxal xanaa bàyyi yonent bi tuubul Maodo ne tuub na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 nga dem ci bàmmeelu baayam soo demee neel Muhammad na ko de danaa dundal baayam mu fekk ñaari baat seede yi Jibril jiitu sang bi topp ci ba mu demee ca bàmmeelu Abdoulaye Jibril ne ko yàlla joon na ndigal bàmmeel bi nee na nga raay ko yonent bi raay bàmmeelu baayam